bokki taalibe yi tey jii ci altine ji yemoo ak fukki fan ak ñett ci weeru tubaab ñu ngi toogaat fii ci mbaar mi nga xam ne moo nekk ci kër sëriñ tubaab yi te Cheikh Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Basir defoon ko fi feggoo ak sëriñ Cheikh Mouhamadul Basir ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ci ndigalul Serigne Touba moomu di Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér moo am ay kàddu yu ko ñor lool waat ko ko ñun ñëpp ñu maase déglu kaddu yooyu nga xam ne moom la Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yónni Cheikh Mouhamadul Basir ñu maase déglu ko. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin mudabbiril umuuri wal xalaa'iqi ajmain wa huwa alqaa'ilu fi muxkami tanzilihi allahu alamu xaytu yajcalu risalatihi wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa saxbihi zawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul cheikh Mouhamadou Mountakha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 waaye nag moom mi nga xam ne nag moo fi ñëw ne ñëpp xam ne ganama buy ñëw ci dëkk bi Sëñ Tuubaa ko yëkkati ak moom kon nee na li lislaam santaane ci teral gan nee na mi nga koy digle ci seen digg moom yéen ñi nga xam ne taalibe Sëñ Tuubaa ngeen rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil mu falyukrim dayfahu sëriñ bi nag nee na kon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 moom ci boppam itam nam nañ ko daa tànnee kam ko teg ci loxoom dana ko tànnee noonu mooy seet ñi nga xam ne am nañ yaakaar ci ñoom ci dëkk bi ak mboolem kër kilifa yi ak kër seex seek ñi nga xam ne war nañ caa bokk ñu mu dugal leen ci biir dana xam ne mu koy defe waaye loolu na leer ñëpp ñu xam ne dara ñu ci soppi niw ca kon sëriñ bi nee na lool itam mu ngi koy leeral na ko ñëpp xamee noonu mu de desaat beneen boo xam ne neewoon naa ko fàttali nee na dëkk bi daa am war mooy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 na dem ba ci ñëw wax leen ko boo mënta ak nga ñëw bi ci wax ko ko te jàpp naa de itam kenn sëñu sëñ bi teg la fenn ab taalibe ba gën a woyof mbubb ñëw di la wax dara te digluwoo ko ndax loolu sa responsabilité kon loolu mooy ñaari weddi bi koy jeexal nag mooy lu jëm ci màggal gi ndax màggal gi li ci des bëree tut defoon ndaje ci CDD ci Mbàkke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 ña ko war a defar bu ñu ko defarul ñoom danañ ko defar ndax boo xoolee tëri njuga keb yi dem ba ca rond-point Touba bi sës na ci jumaa ji jege na am na ay kamb am na am na nay pax accident yi bari na jëfan yi kon loolu nañ nañ ñu dimbale góorgóorlu ci def ci jiite ngir xam ne sëñ njaboot gi la am te foofa foofa kat ku fa romb te waxoo ci te waxoo ci jàpp naa li ngay wax ci suñu tuwaat dëgg ceew ku fa romb ba teg ci sa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 ñu ngi jeexal foofu kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar هماني هلا ماهٍ مع الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهٍ مع الأبس والسفر صلاة